gayndeyu Sénégal euh, tey euh, jëbbal nañ leen li nga xamante moom moo di raaya Sénégal raaya réew mi euh, ñu war a teew ci lii di Coupe d'Afrique des Nations bu war a am Mozambique tàmbali ñaar fukki fan ak benn ba fanweeri fan ci weeru ok octobre donc lolo tradition républicaine le wala sas le euh, pour waouh sénégalais waaw Sénégal lii fou que la participation ci CAN Beach Soccer moom nag ki leen ko moi le ministère tourisme comme ministère des sports nekk fi ministère des tourisme moi leen des drapeaux di euh, drapeau c'est faut mi le ministère des sports euh, tey ci 11h moom nag Sénégal ñu ngi bokk ci groupe B bi le premier match ñu ngi koy joué ak ñii diwa Ouganda fallait Maputo. donc ni fàttali du Sénégal moi champion d'Afrique en titre. en titre oui. donc de big soccer.